ci wàllum koor gi ak korite gi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye en tout cas li am ba nga xam ne moo la te nag li jëm ci wàllum transport gi loolee ci dund yéen kaay gi ne nag ne manqué na ba de tali jamono ma ngi wàcc waaye nag ñu baree bari waaju nga xam ne moo ko waral mooy dëkk bee dëgër dëkk bee dëgër dëkk ne na en tout cas li ay dépenses xam ne gars war nañu ko def ci korite gi waaye nag dëkk baa ngi mel ni tulleeg màlle dëkk bi dara doxul ci dëkk bi yéenekaay gi nee na bëri ay borom kër yoo xam ne dañoo jaaxle ba maaralitaal yi ma ne la dëkk bi am na ñoo xam ne nelawatuñu ba yandoor nelaw ba yandoor bay xandoora am na ñoo xam ne defutuñ ko yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne nag ñooy jaaykat yi ca marché HLM ci Ndakaaru ñoom tim nee na ñu daal gisuñu ay client gisuñu benn client yéenekaay gi nee na xaalis moo amul journal bi nee na ñi nga xam ne tamit ñooy tailleur yi nee ñu gisuñu ay client tailleur yi nee nañu bu Moussa Diop maanaam ñëw yi day mel ni tulleeg màlle waaye yi nee nañ gisuñu benn client yéen kaay gi nee na askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci diwaanu Louga jamono ji a gis ginaar li nga xam ne mooy ginaar ñu bare bari gisuñu ginaar yéen kaay gi di réew mi ko di cee nee na ministre Sophie Gladima moom mi ngi dalal askanu Sénégal ci lu jëm ci wàllum ñàkku carburant navrage yéen kaay gi di évidence nee na en tout cas li am ba des sal koriteg ren gii du yomb de du yomb si ñenn ñi la ko waral mooy xaalis moo amul teg si nag njëg yu bare bare bare maanaam dañoo yokk ba maara détail yi bi di évidence nee dund gi métti na loola waaye tamit li nga xam ne mooy location bi location bi dafa cher ba jéggi tayo ma la facture yu ndox yi sax dafa yokko yéen gi di la xëy duñu xibaar naan ñu crise bi nga xam ne moo am loolee moo nar a yàq korite ci miir bi moom Macky Sall yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu naan ñu jamono ji nga xam ne askanu Sénégal bëri na ñoo xam ne dañoo sonn ba maara détaal yi jamono jooju Macky Sall moom ma ngi politique ndax nag bëri ay maire yoo xam ne Macky Sall ronqi na leen ci yeewi askan wi ak wàllu Sénégal dugal leen ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax maire bu Bambey Néema Assane Dia yeewi askan wi Sall ko na ko andi na ba la ko dalal Mor Ngom moo ko fa yóbboo yéen kaay gi ne ne El Hadji Amara maire bu sagata moom tim demoon na sa pale ba dem na ca benn bokk yaakaar yéen kaay gi de laas ñu xëy fekk fa Mansour Faye mi nga xam ne moo la ñu dénk wàllum transport nee na train express régional ba mu ñu ko commencé jëfandikoo ak léegi toll na si téeméeri fana lu toll si juróomi million ci ay doomu aadama ñoo ko jëfandikoo liggéey na lu toll si ñetti milliards journal bi de la Tribune nee nag lii mooy firndeel ne li nga xam ne mooy TER bi ñàkk na solo loola ndax at mi lu toll ci douze milliards la ci liggéey yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy na benn fonctionnaire ministère des finances jamono ji nag soo muy tulee dina ñàkk ab immeuble am boo xam ne cité kër góor gi la nekk bi ñu ko xaymaa deux cent la woon daf koo tay la woon dafa garanti woon benn commerçant ci benn banque yéene kaay gi délibération xëy dañu xibaara naan ñu lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba léegi pënd bi wureeku la njaw ma ngay woy di de su xamee ne ndax nag tey jii médecin bi nga xam ne moo gunge woon Sidi Mohamed Mbaye tey jii danañu ko dégloo waaye tamit médecin bi nga xam ne moo defaroon certificat médical ba nee ma coow hôpital CDO moom tim tey jii danañu ko daal di dégloo yéene kaay gi di réew mi ko na njombe am naa ginnaaw Louga geneen ak njombe am na ci fi nga xam ne mooy centre de santé bu Passy yi foofu nag dafa am koo xam ne góor la ay atam toll ci fanweer ak juróoma maanaam moom dafa amee woon crise asthme bi mu ñëwee kenn jële ko ndax gars yi nee nañu dañoo gréwa journal bi nee na lii nag mooy négligence médicale dëggantaan na yéene kaay gi na askan wi nga xam ne ñoo yeewoo diwaanu Passy ñoom dañoo mer ba maara détaillé yéene kaay gi du l'observateur xëy la ñu joxar bi baaraamu la